bismillaay may bëgg a waa ji jar di way boo xamoon ki may bëgg a way kenn mu lay saw ci Sénégal bismillaay ñuy bëgg a waa ji jar di way sang bee boo xamoon ki ñuy bëgg a way kenn mu lay xalifa général borom kiti saaya borom bolo yaa saaya sama ruusi Ceerno Mulay Saw ci Sénégal bismilaay ñuy borom sam sama ruusi ci Sénégal Ceerno Mulay xalifa général borom jinne yee ñun waa la ci jamono. ñun yow la nu gëm yow la am yow la nu doy waa Daaru laay ne leen est-ce que Thierno. maa ngi bëgg waa ci jërë di way. sang bee. moom ki ñuy bëgg a way mu lay xalifa général. kenn mu lay yow ku la ñam du làmb leneen ku la daj. du xooli leneen ku am am lu riis ci jamono bismillah yi bëgg a way waa ji jarab di way sang bee moo xamoon ki ñuy bëgg a way kenn mu lay xalifa général ki kenn mu lay saw faj aajo yee mooy borom ki seet faj aajo yee a way waa jar di way sang bee a way ngeen mu lay borom batu allahu yee borom jëwu allahu bi kenn mu lay soof yow aboo moroom ci jamono laay ñuy bëgg a way waa ji jar di way sang bee bëgg a way kenn mu rey waa daaru am nañu ndam am nañu ndam leeg Thierno Moulay Sow ci Sénégal a way waa ji jarul sama ma yenu woon bi rey ko ci jamono bëgg a waa ji di way sang bee moo xamoon ki ñuy bëgg a way kenn mu lay xalifa général Adja Mariama Kamara sa yaay ci papa Mamadou Ali Sow sa baay ci jamono kenn mu lay amoo moroom kenn mu lay borom jine yee bismillah yi ñuy bëgga way waa ji jara di way sang bee moo xamoon ki ñuy bëgga way kenn mu lay xalifa général Usmaan sam si sama ruusi saw feelu gi kenn mu lay saw ci Sénégal kenn mu lay saw ci Sénégal kenn mu lay saw ci bitim saw ci bitim réew kenn mu lay borom jamono kenn mu lay xalifa général kenn mu lay borom jinne yi kenn mu lay borom sam si sama roose ay suñu sang bee kenn mu lay borom wallaahi jenna mu lay jamono jenna mu lay borom jamono jenna mu lay borom jamono jenna mu lay ba abadan jenna mu lay borom jamono jenna mu lay ba abadan jenna mu lay borom jamono jenna mu lay ba abadan jenna mu lay borom jamono jenna mu lay sow ba gëm nañu la gëloo nañu la yaakaar nañu la sa yaay du ñëwee waaye weneen Thierno Moulé Sow Thierno jamono Thierno Moulé ba abadaan Thierno sa waay du ba abadaan